Weuz jàmbaar ngeen jàkkaar lool ndigal moo leen won ginnaaw mbokk yi ndeysaan Weuz jàmbaar ak ndigal Weuz jàmbaar ngeen jàkkaar lool ndigal moo leen won ginnaaw tey Albourakh Events woo ñu fi Weuz jàmbaar ngeen jàkkaar lool ndigal moo leen won ginnaaw ñaari mbër yaa ngi lewtoo Weuz cokkaas na Weuz jàmbaar ak ndigal ñaari mbër yaa ngi lewtoo ci diggante Weuz Jambar ak Ndigal Weuz Jambar ak Ndigal Ndigal moo leen wan Jambar ngeen jàkkaarloo mbokk yi ñaari mbër yaa ngi lewtoo kurbeñ amagul cong amagul Weuz Diambar ak Ndigal ayca arbitre bi àtte na combat bi ay ca at bi sifle war na ci diggante Weuz Diambar ak ndigal ndigal wan leen ginnaaw biñ ñu kaasee fii lañ waroon a teg fii policier teg fii policier bu làmb ji commencé ñu ne bu kenn jàll diggante Weuz ak Ndigal ñaari mbër yaa ngi leew tooba tey kurpeñ amagul tong amagul daje nañu ndigal door na léegi daal taxawaat Weuz Diambar ak ndigal Weuz door na léegi kenn nanguwul jël sa responsabilité ñoom ñaar ñëpp faaw kenn jël responsabilité am Weuz ak ndigal ba tey calcul bari pël li ñuy calcul ñaar bari eh was door na dooraat laa ilaaha illallah ndigal ne tekki tekkaaral ah si boor ah si toor atte na nee leen ñëw leen was am na benn avertissement ndigal am na benn avertissement ay ca sifflé waat na ci diggante was jàmbaar ak ndigal xaar ak ndigal waaye nee naa la ca face to face ba eh eh Weuz door na dooraat hey eh! Weuz jàmbaar ak ndigal Weuz jàmbaar ak Niguel ba arbi atte arbi atte lu may xew ku ci nekk am ngeen ñaari avertissement ay ca sifflé waat na Siteu da koy arbitré cinq minutes. ca mbokk yi digal benn digal digal ak wës jàmbar ndeysaan mbokk yi ndeysaan attention mboot laa ilaaha la mboot ma àgg na wala àggul attention ndigal la ngay door laa ilaaha illallah ndigal wës jàmbar wës jàmbar botte na ko war na ko ndomba xale ba rëcc na ay ndigal rëcc na ndigal rëcc na ca war ndomba ba mais ndigal ndigal la ndigal rëcc ca war ndomba ba laa ilaaha illallah oh oh. oh oh nañu arrêté musique bu waay ndeysaan ndigal Weuz Diambar ah ndigal moo Weuz Diambar moo waroon dombo ndigal rek ndeysaan bare nañu lu neex ndeysaan Weuz dafa aj loxo bi jaar ci poxotaan bi def demi flexion doon ko bëtt wër kon dombo xale bi rëcc ndeysaan mais tamit poids bi ci la bokk ndeysaan mbokk yi ndeysaan ma nga noona ndigal wës jàmbaar ndigal wës jàmbaar noonu du romb sey naar kenn du yow waaye fi ñu teg ba sonn mais fii doy na waar trop ndigal wës jàmbaar ndigal wës jàmbaar xoolal ma waa CNG ñooy ndigal Weuz Jàmbaar ak ndigal lu wante ci image yi la grand ménager ey ndigal a ngi door ci suuf ndigal a ngi door Weuz a ngi jàpp Weuze ngi defar. ngay defar jàpp ma. Weuze ngi defar gis nga dugal na benn uppercut. ndigal fayu ndigal door mu sëgg. incha allah wax ak ñoom arbitre ñi kay door. ndengeñ bi gën digal ndengeñ na ci di ko ma waa seen rek seen siré ñooñu teg fi ba Weuz fu ndigal teg bopp bi moo ko empêché moo tax mënta liggéey. moo ko empêché dafa sax. ndeysaan dafa jël bopp bi teg ko ci ci booli gi. loolu nag CNG lañ ko doon tere gis nga. ndigal la ngay ndigal la ngay bot doo Weuz ngay na ko sees daan na ko. Weuz. Weuz daan na ko lay laaxee la laa. Weuz nee na ko wax kese nga ci amoon. o Weuz gaañu na Weuz Weuz daan na ndigal Weuz jàmbaar daan na ndigal ma ngay soox. lay laaxee la laa Weuz. oh oh